الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam waliya habbil mustafa xayra siyam mbokk yi ñu seetaan fii ci biir réew mi ak ci bitim réew ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal cheikh alxalifatul am cheikh muhammadul muntaxa mbàkke yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko noonu la ñuy ñaanalee kilifa diine yi ci réew mi yëpp yàlla leen fi yàlla bàyyi te wéral leen te mottali seen i naal ci diine ji mbokk yi seen émission boole alxuraan yi nga xam ne moom lañ leen di amal ayu bis bu nekk di ci ànd ak compagnie Alaaji Sëriñ Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi koy jàppale ci liggéeyu diine bi muy alxuraanul karim di leen fàttaliwaat li nga xam ne mooy concours yaatal mbindum alxuraan xam naa dinañ ci ñëwaat ak yéen euh, tàmbaliwaat na di ñaan rek yàlla nañ ci dugg jàmm génn ci ak te kenn bañ a manqué incha allahu taala mbokk yi seen émission booley alquran yi ñu ngi ci ànd ak sëriñ maxtaar kemem Cheikh Saalihu Mbàkke yàlla yàlla yokku leeram muy borom xam-xam moom lañ ci àndal ay bis bu jot waaye di gërëm suñu technicien alxaaji Moustapha Sarr mais di gërëm ki nga xam ne itam mooy Abdou Khoudous Silla ca Daarul yi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi yëpp di ko ñaanal Abdou Khoudous liggéey bi rafet na am na solo yàlla nañ ko yàgg a teewee yàgg koo def di di di bàyyi xel bu baax liggéey bu am solo bi nga xam ne moom ngeen génnee muy formation ñi nga xam ne dañoo bëgg a bokk ci concours bi amalee ko woon ca Touba. waaye laataa ñuy dugg ci waxtaan wi yëpp nag dañuy bàyyi sëriñ Maxtaar mu nuyoo sëriñ Maxtaar ni ngi lay waxaat asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah Cheikh Omar. Sylla maa ngi lay nuyu bu baax te di la siyaare. di nuyu mbokki daara ndax émission bi moom ñoom la ñeel. waaye di nuyu kilifay diine yi ci réew mi leen nuyoo bi ci Cheikh Mouhamadul Muntaka di ci teg njabootuk Serigne Touba ci yeneen pénc yi bàyyiwuñ ci kenn di nuyu alaaji sëriñ Seck mi nga xam ne mooy njiital C3S liggéey bi di xalaatub sëriñ Fallu mu wéyal ko boobaak léegi muy bëgg a def ab diir ndax buñ seetee tàmbalee nañ bàqara ba tey jii ñi ngi ci ñaar fukkeelu isib ak benn kon loolu mu ngi dem bu jógee ci juróom-benn fukk nag ku nekk xam naa la des xam naa mi ngi jegee xaaj kon ñu ngi nuyu ñu koy topp ñëpp nag te safoo ko sëñ Abdou Khoudous Sylla moom nga wax maa ngi koy nuyu ak yeneen bokk yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi sànni seen i ak fu ñu mën a nekk muy émission boo xam ne rek li nga waxoon léegi muy lu raar la loo xam ne noo ko moomal sunu bopp jëggaani wuñ ko gone nag bu ko bàyyee mbaam maamam defalee loo xam ne jëggaaniwu ko te loola di lu ko amal njariñ war na koo téye moom itam ba mën koo jox ñeneen ñooy ñëw ëllëg xay na kon sunu jotaay bi loolu moo ko waral seen mbokk seen xarit Mokhtar Kébem Cheikh Salah jërëjëf sëriñ Makhtar Kébem Cheikh Salihou Mbacké ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi nuyu waa Kajoor di nuyu waa Njaareem di nuyu waa Daarul Muxti mboolem fu daara yi alxuraan bu mag nekk ci réew mi rek ak kuy sëriñu daara ak foo ko nekkee noo ko noo fa nekkee rek di fa jàngale téereb yàlla bi ñu ngi lay nuyu xam ne émission bi sa émission la ngeen topp ko di ko partagé waaye itam di abonné ci chaîne bi ngir mbooleem waxtaan wu ñu def bu jëm ci alxuraanul karim ngeen mën koo jot incha allahu taala sëñ Makhtar suñu laaj bu njëkk mi ngi jëm ci an na bañ an bañ yet an bañ yet chey an mawti mhm. an yépp nga baraan xaasi an mulki am sa gi day ci kaw bañ du ndéenéer ndéenéer mooy tegewul ci kaw ci alif jërëjëf jërëjëf sëñ Maxtaar waxtaan wi am na solo waaye eh, li ma gën a neex mooy baat yooyu nga ciy indi muy baatu ndéenéer ndéenéer boo koy leeral ki juddoo ndakaaru fii te eh, mooy fa dara néewul terrain niil mooy ndéenéer téere bañ tabax mooy dundee néer allahu akbar <laughs> macha allah xoolal ma leeral bu gàtt boobu nga xam ne moom ñëpp ko ñëpp ndéenéer mooy terrain vide waaw jërëjëf mm-hmm. alif goo xam ne amul alif gu amul gu amul gu amul hamza du tege ci kaw bañ tege ci kaw bañ uh-huh. ak alif guy tege ci kaw bañ dëgg la bii nag day tege ci kaw bañ uh-huh. mooy bii terrain dañ cee tabax jërëjëf <laughs> macha allah sëriñ Maxtaar laaju ñaareel bi mi ngi jëm ci aabiduuna aabiduuna juróom taara mbóore baraan boo demee ci baraatun mhm. xaabiroon nga dafa taara mais laayewut mboore mooy lu laayewut mhm. lu laaya nag mooy dij laaya mhm. su mboorewu su mbooree mooy amut laaya ñu ne xaabidoona juróom taara mboore baraan baraan mooy baraatun taara laaya yaar la dafa taara ba noppi laaya yaar la laa nag muumin surtout muuminoon xadaf laal bañ taara mboore yaar la yépp nga kaafiroona wala kaafiroona amul benn xaabidoona noonu ñu ko wax woon qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa abudu maa taabuduuna wala antum aabiduuna taarawul de taarawul de maa abudu wala ana aabidun maa abadtum wala antum aabiduuna maa abudu ñaari aabiduuna yëpp du taar jërëjëf sëñ Maxtaar wallaay wala antum aabiduuna yëpp du taara jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral bu am solo boobu jëm ci aabiduuna euh, ñetteelu laaj bi sëñ Maxtaar mi ngi jëm ci gélli ngañ yi xel ngañ yi yaar mhm. xel watan mhm. baraan xel maanun tuur mhm. kenn du ko def xaaf xëyin la xëyin la waaw moo tax xil nganji mhm. yaar mhm. xil watan baraan xil maanun tuur ñu leeral ne ngañ ñi mooy ayin ju am tomb ca kaw waaw jërëjëf sëñ Maxtaar euh, ñetti ñeenteelu laaj bi mi ngi jëm ci ndawum sila la njeego ndawum si la njeego njeego mooy juróom benn waaw te lépp nag sila la la ñoo bokk niñ leen di prononcé wala bokk ñoo bokk di ak si akuk mm-hmm. la mm-hmm. ñu ne ndawum si la njeego manazila ngeen yaar mm-hmm. yunus ak jaal ngeen la muy rasayin la fatazilla naxli ngeen gaa fay daan ndaw rasayin la annazila tahi laañ gaa fay daan ndaw ak del ju tooy la madazilla furqaan taat gaa daan ndaw ak taati daroo la wa xussila aadiyaati riidu gaa daan ndaw lépp sila la. Mhm. kon dafa def zila. Mhm. def zila. Mhm. def zila. def sila. yëpp a ngi ci biir. ok macha allah macha allah kooku texantal bu am solo la. ngir nuroo yi nuroo te bokkuñu nuñ leen di bindee. xam ne boo ci xool rek am na bu mu morom ma. muy silaak zilaak noonu ko limee. macha allah sëñ Maxtaar euh, beneen laaj bi mu ngi jëm ci xadama. xadama juróom. jam jam yunus yunus rek lañ ko dul sàddaa. ñeenti xaddama yi ki des yëpp dañ koy sàdd ñu ne hmm. xadama juróom hmm. jam-jam yunus hmm. jam-jam mooy xadama rek lay doon daal ga kenn du ko laal xaddara njeego la juróom benn yoon la ñëw jam-jam fa jëri ce que sëñ maxtaar sëñ maxtaar beneen laaj bi gannaaw bu ñu rafetloo leeral yu am solo yooyu jëm ci xaddama beneen bi ki topp mooy nazara taat nazara taat Mm-hmm. naayoo ñeent la mm-hmm. nadara baaduhum mm-hmm. baraan muy baraaatun fa nadara nadratan baam mooy saafaat nadara almaghshiyi qitaal tumma nadara tumma abasa ca mudathir nadara jam-jam kay nadara taat naayo dëgg la summa nadara wa aba suma suma nadara summa abasa suma abasa wa basara wa basara macha allah macha allah alquran daal sëñ maxtaar da ngay xam ne kalaamu rabbil alamin waaw maanaam ni mu koy nosee nga xam ne la Serigne Cheikh Tidiane si yàlla yàlla yokku leeram nee na ku ko dégg ba mu jeex te tiitoo rafoo jooyoo dara jotu la ñaara mën a am imma da nga dib jaahil wala misqaalu darratin min al iman newul ci xol bi waaye balaaxa bi muy waxee da ngay xam ne lii nit mënu ko créer waaw sëñ Maxtaar am na solo trop ci boole wu am solo boobu jëm ci nadarataat bi ki topp mooy fi samawaati wala fi lardi fi samawaati wala fi lardi naayo ñeent subhaanahu nga yunus wala asxar ak wama lahum yëpp nga saba in innahu nga faandaak faanda mooy fàttari macha allah macha allah mm-hmm. jërëjëf mm-hmm. sëñ maxtaar xoona njomboor xoona njomboor juróom la juróom la yab xuuna mm-hmm. yab taxuuna tab xuuna tab taxuuna yu juróom xoona ah. am solo yooyu sëñ Masaar mu ñu jógee ci Ngoro Njomboor ñu ngi jëm ci bari fooru bari fooru naayo hmm. fooru mooy bijji mbijji bijji lu bijji lu xëcc lu xëcc bari an hmm. daa bijji de jigéen mooy nisaa yi hmm. bari oona yunus al bari ati yaar la yépp nga kaw ni charrul bari ati ak xayrul bari ati kaw ni mooy mooy mooy sootul kaw ni lam yakuni lam yakuni alladina kafaru jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral bu am solo woowu jëm ci bari fori sëñ Maxtaar beneen laaj yi mooy aasi dogi riidu aasi doge riidu mhm. aasi gi day dog mhm. te ak saata cay tege mooy ak riidu hmm. boo defee aasi gu dog bu noppi def ci siin daanu nga boo ajee aasi ba noppi def ci saat daanu kon day dog ba noppi ci riido cey tege mooy ak saat allahu akbar aasi doge riidu naayo la mhm. aasifun min aasimin yepp nga yunus fii yow min aasifine nga birima mooy Ibrahima. Mhm. aasifatan lën bi. Mhm. mooy sëratu lën bi yaay mooy sëratu lën bi yaay. macha allah macha mhm. allah aasi doge doge riidu. mooy loolu nga xam ne moom la suñu maxtaar doon leeral. kon mbokk yi ngeen noté te xam ne ay boole yu ndaanaan dëgg nga fi indi tey rek suñu eh, waaw boole yu am yu ndaanaan dëgg fi indi. jërëjëf sëñ maxtaar euh, beneen laaj bi mi ngi jëm ci man fii waman fii. man fi samaawaati waman fi l ard ñu ne man fi waman fi naaya la mm. ñeent yoon la ñëw ci alquran muy ban ak ban wa maa yattabixoo nga yoonus mm-hmm. wa shamsoo nga hajji mm-hmm. fa fasixaa nga namli mm-hmm. fa saxiqaa nga sumar bu ci nekk man fi sanaat man fi leer day ko jiitu allahu akbar jërëjëf jërëjëf suñu laaj bu mujj nag mi ngi jëm ci xablu bañ min xablu bañ min yaar xablu wa kunta yoonus xablu fii ahlina tuur amul benn min bu ci tege xam ne xablu la guy ñëw directement waaw wa kunt xablu wa kunt alaana waxad asayta xablu wa kunta min al mufsidin hmm. mu ne xablu wa kunta hmm. yunus hmm. xablu fii ahlina nga tuur allahu akbar bañ men mooy wa tuur wa kitaabil mastuur jërëjëf sëriñ maxtaar kebe ci émission bu am solo boobu muy boolee alxuraanul karim yi di la sant bu baax a baax nag ci disponibilité bi nga xam ne saa buñ la soxla rek di nga bàyyi yitte ngay def yëpp ñëw waxtaanee alxuraan loolu li rëy la lu rëy ci ñun lu rëy ci lu rëy la itam ci ñi koy seetaan ndax ñi ngi ci jëriñu mhm. man ñi may wooye fu ne di rafetlu émission bi mhm. waaye di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ñu jàppandalal lii bañ mën koo am mhm. muy compagnie Alaaji Sëriñ Seck di ko ñaanal gudd fan ak wér waaye di la nuyu itam sëñ Maxtaar di la ñaanal gudd fan yàlla sàmm la aar la comme ni mu sàmmee téere bi ci barki alxuraanul karim sëñ Maxtaar laataa ñu yëkkati jotaay bi yan kàddu ngay tëje di soññiwaat tàmbale ko sama bopp ak saa mbokki daara alxuraan li ngeen koy waxee amuñu lu dul moom yéefar yi sax toog nañ ba ne jullit yi bu ngeen fexee ba dootuñ jàngati alxuraan dootuñ ko déggati lu ngeen bëgg ci ñoom ko am waaye feeg yi ñi ngi koy jàng di ko dégg du ngeen ko am kon defe na al xisnul asid mooy senge su sengew wala tataju aare wala sécurité mu ngi tàmbalee ci jàng alxuraan te di ko jàngale bi ki des ñun dañoo amul jot benn waaye dafa toog ku keneen ku dul waa lislaam mu koy jàmbat naan ko yéen seen gone yi dañoo sonn toujours ñu ngi ci internat yi ñu ngi leen di gëyte gëytee loolu daa metti waaji na ko wax nga dëgg ñun suñ téere borom bi ni mu wàcce ni lañ koy jànge du testament nu la neexee nga liire ko bu la neexee nga liir ko ci ay séeréer wala ay pël wala ay wolof déedéet te ko ci yàq def nga erreur bu rëy te téere bi daa bari juróom-benn fukki isib la te gone yee ko war a mokkal ci dënn yi la war a ne yeneen joo xam ne seen téere mel na noonu seen ko yeneen diini sëñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu di la gërëm di la sant waaye di ñaanalaat alxalifatul am Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla yàlla guddal fanam te yokk ay naalam waaye wéral yaramam li mu bëgg ci lislaam bëgg ko ci yoonu maamam bi yàlla na ko yàlla may tawféexu mu àggale ko ñi ngi gërëm bu baax itam waa aljaiza aljaizatul xadimiya al alamiya ci njiital sëriñ Jili Ñang muy le grand prix Cheikh Ahmadou Bamba international ñu jëm ci yàggatul dara incha allahu taala ñu ngi leen di ñaanal jàmm di di di di leen ñaanal itam ñu tàmbalee ko ci bismillahi rahmaani rahim àggalee ko ci alhamdulilahi rabbil alamin